bi nga njëkk a wax mooy institution yi nga jëlaale exemple mandat bi beneen bi nga ne industrialisation mais man li ma doon gën a xaar mooy éducation avant ñaar yooyu parce que sànq yaa ngi ne euh, quelque part Afrique tey dem nañu ba comprendre que enjeu wu suba yi elle est incontournable mais ma ne est-ce que xëy na nekkatuñ ci temps wu esclavage mais boo seetloo actualité bi tey li ci xew mooy des jeunes afri africains yoo xamante nii ñu ngi mu jaral leen ñuy traverser désert bi mu jaral leen ñuy jël ay gaalu looco pour dem à l'extérieur tey jii quelque part africains yi nga xamante ne ni temps esclavage dañ leen daan jàpp di leen di forcer tey suñu jamono yi kenn forceetu leen ñoom ñoo jël seen initiative mu jaral leen seen bakkan pour ñu génn le continent ma ne est-ce que éducation boobu nekkul loo xamante ne nii en Afrique dañu ko faussé te mosuñu ci jéem avancé parce que jël nga exemple Chine mais bu ñu jëlee tamit exemple Corée du Sud mun nañu wax ne dans les années 60 moom ak Sénégal seen PIB neexoo woon na mais tey bu ñu demee ba nga xamante ne nii ñoom toll nañ foo xam ne ñu mënuñu leen sax seen éducation la ñu jël jox gëdd boo xamante ne nii tey euh, euh, coréen lu mu ñàkk a xamadi xamadi xamadi dara boo ko euh, dugalee ci benn kii automatiquement mu gis boppam parce que jàng na jàpp ne jusqu'à présent. éducation boobu nga xamante ni ah un moment donné dañu doon wax ne mooy jël 40 pour cent de l' économie nationale est ce que nekkul un grand gâchis boo xamante ni moom mooy tere aujourd'hui Afrique mu développé parce que même ñu nga xamante nii ñu ngi jël gaal yi di dem dama jàpp ne bu ñu amoon formation bi gën dina ñu comprendre que Afrique bi ñuy daw pour dem Europe moo ëpp ay opportunité foofu ñu jëm donc est ce que loolu yëpp nekkul éducation bi moom la ñu faussé dès le départ continuer di ko faussé vas-y. waaw waaw <laughs> jërëjëf euh, ci ci ci question bi euh, alors est-ce que éducation mooy priorité économistes yi ah, nee nañu y'a neuf domaines y'a neuf biens premiers ji ci ji ci werante nag depuis cent ans. ci loolu maanaam ou alimentation lu jëm ci wérgu yaram lu jëm ci éducation li li jëm ci euh, logement sécurité dem ak dikk euh, euh, solu mm-hmm. habillement mm-hmm. ak loisir culture quand il y a eu l'affaire de la Covid bu tubaab yi bi ne lefe pangolin secrétaire général ONU ne ñun dañuy jeex ma bind benn réponse tontu leen ne leen euh, euh, loolu mënta nekk mënta nekk euh, d'abord parce que on va s'en sortir Euh, l'Afrique euh, la population est jeune bon les, les, les médicaments les professeurs Moussa Seydi Euh, ak ñoom kajaa kajaa Diallo yooyu ñu ciy liggéey yooyu yaakaar naa ne dinañ dinañ ci génn. Mm-hmm. loolu yàlla def donc seen prévision yi euh, euh, ça c'est faussé ñaareel bi moo doon ne ci biir neuf biens premiers yooyu man jàpp naa ne Covid bi lu mu ñu jàngal mooy bu ci ëpp solo mooy wér gu yaram soo amulee wér gu yaram. doo lekk doo naan doo tal jàng. mais kuy faj bu jàngul du faj kenn. waaw <coughs> xam nga non xam nga euh, waaw c'est-à-dire euh, tout ça là est important et c'est lié. Mmh. si on discute depuis cent ans. c'est parce que c'est c'est c'est c'est pas facile. looy wax ñëpp bon tout ça ça fait partie il y a des gens qui font des thèses là-dessus et di ko jàngale tout leur vie. mais dañuy xool ah, euh, suñuy peser facteurs yi en qu'est-ce qui est à mon avis en tout cas c'est la santé qui est prioritaire loolu la ñu Covid bi wat parce que tëj nañu ñëpp suñu biir kër euh, ah et on a compris que un petit virus que personne ne voit ne connaît ñëw nekk le patron du monde entier mhm. euh, voilà euh, cinq euh, millions cinq milliards de prisonniers volontaires loolu moo fi am alors juste pour wax rek ne wax nga éducation am na keneen kuy wax santé alors notre projet c'est de dire même si tu éduques éducation lañ ci dellu si ban façon éducation nga leen di jox pourquoi faire souvent ñi ngay dégg ñuy wax ne waaw y a pas adéquation entre le système éducatif et l'emploi et cetera et, et, et voilà mais loolu c'est pas clair dans la tête de nos dirigeants soo ubbi le PSE nga commencé ko lire après leur analyse sur la démographie ils te parlent d'éducation non waxi Macky kay ko yow la ñuy wax loo xalaat donc non di wax rek ne euh, mbirum éducation c'est pas facile il y a 7 millions de Sénégalais yu war a normalement jàngi qui ont moins de 16 17 ans 3 millions la l'école de la République ñoom lay toppatoo primaire yeeg 3 millions daara yi 1 million le reste ñu ngi ci tali bi enfin ñu ngi leen di jàngal ñi ñu ngi ci ginnaaw nag yi ñi ñu ngi ci ginnaaw mu ñu may woy les jàngisés les daraisés et les scolarisés ñett yooyu moo fi am mhm. mais en réalité depuis l'indépendance on ne s'occupe que des scolarisés ñooñu la ñuy wax sa éducation ñooñu ngay waxal foofu une première difficulté ñëpp ñu ngi koy dund mais est-ce que ça c'est pas une erreur également quoi le fait que dana s'occuper que de scolariser ñeneen ñi seen yoon nekku ci alors que c'est des Sénégalais analyse a man maa maa fii rek nga ko dégg ci man ak waate <laughs> mosoo ko dégg feneen même le Mamadou Dia le père le vrai mosuñu koo wax en tout cas à ma connaissance ñun ñoo taxaw analyser parce que dañuy gëstu ci koom-koomu Sénégal dañuy gëstu ci société sénégalaise di wax ne donc l'éducation elle est fondamentale je suis d'accord comme la santé mais pour ñun projet industriel bi moom mooy jiitu par exemple su ma ne je donne un exemple waxuma ne parce que du ma fi wax fii man quelle quelles sont mes filières d'industrialisation parce que ñële euh, sàcc sàcc sàcc sàcc sàcc samay idée yooyu nañ fi nekk donc euh, ma campagne bi su commencé dana dana dana développer je donne un exemple qui n'est peut-être pas euh, euh un bon exemple mais kii moom ma ko inspiré ak son son son indien si je prends la filière textile j'ai envie je dis je développer la filière au Sénégal mës na fee am d'ailleurs Sénégal mës na am filature. Mm-hmm. Euh, tissage ak yëpp confection macha allah ils trè très doués. Mm-hmm. alors quelqu'un peut dire effectivement on fait du coton même su nekkee vraiment on stagne à vingt mille trente mille tonnes de coton depuis des des, des dizaines d'années. Mm-hmm. alors que soo gisee en un laps de temps Mali dem na cinq cent mille dans un laps de temps Bénin dem na cinq cent mille alors je dis je alors mais ça veut dire que dans mon système éducatif. il faut que je forme des gens pour aller travailler dans le textile. Mmh. Oui. Mmh. Souvent, par exemple, je dis, euh, bon, je prends un exemple qui est, euh, par exemple, le numérique, Yenning Tibir, avec tout ce qui est télécom, etc. J'ai formé des gens pour aller travailler là-bas. Donc, l'éducation doit avoir le projet industriel. Mmh. C'est ça la grande différence avec les autres de tech. c'est-à-dire il faut penser le pro projet industriel en déduire à ce moment-là les projets éducatifs y compris les de santé les projets d'aménagement du territoire nest pas les les les les produits alimentaires et c'est ça le développement c'est ça l'industrialisation moom le Chine def moom la matière def en Malaisie. mais monsieur la ñu proposé est-ce que est aller directement à l'industrie c'est quelque part euh, manquer une étape maanaam euh, lii war a nekk la base de l'industrie mooy le secteur primaire que l'agriculture soit développée la pêche l'élevage la pêche ñu am ay ressources natu euh, ressources premières matières premières yu mën a permettre industrie yooyu ñu fonctionner hmm. du dëgg mais ah ok non ce que tu dis la gars yi di répété tous les jours. <laughs> waaw non man loolu laa jàpp. depuis ce temps mais loolu la. waaw loolu laa jàpp xam nga lu tax. waaw kaay ma hmm. soo buggee développer agriculture. kese agriculture Sénégal le problème lu ah du ndox. Hmm. on a trois fleuves. ndox. Sénégal depuis le père le vrai Mamadou Dia on parle de la maîtrise de l'eau Macky Sall il dit toujours la même chose Abdoulaye la même chose. mais on ne doit pas de problème d'eau mais pour régler le, le problème d'eau c'est un problème industriel <laughs> l'eau ouais. ah, <laughs> il faut aller dans les forages moi j'ai fait l'eau souterraine mm. Inde bu ñuy jaay ceeb bëggoon ñu xañ ceeb c'est au Pendjab c'est le Pendjab qui a développé le riz en Inde mm. sur quelle base deux l'industrialisation euh, l'électrification du Pendjab ils ont tiré l'électricité andiko dans les champs et les forages tube well irrigation. ban genre électricité hydrogène wala euh, hydroélectrique wala euh, euh, solaire wala ban bon xam nga Inde c'est mélangé ils ont eu le nucléaire ah. waaw waaw moom bon bon voilà donc mais ils ont ramené l'électricité au Pendjab. andi des forages développer la culture du riz sur des parcelles de trois quatre hectares. Mhm. le riz en Inde noonu la développé wu. Mhm. donc fii Sénégal li nga koy dégg ñuy wax mais ñooñu ils ne réfléchissent enfin su ma ko waxee sax dañuy mer mais dama bëgg a wax ne euh, euh, euh, voilà bon ils sont sur des lieux communs là comme disent les tubaab. Mhm. Euh, bon on répète des choses bon secteur primaire waaw il faut développer comment tu vas développer aujourd'hui la pêche. Mhm. pêche. qu'est-ce qui se passe dans la pêche. licence il y a deux types de pêche. pêche artisanale sama mbokk lébu yi seen maam maamaati ma bateau yu ñuy defar yooyu garaj yooyu ci yooyu lañ nekk ba léegi ah, nañ ko état bi jàppalewu leen ah, waaw justement <laughs> mën nañ leen améliorer un que effectivement y en a qui peuvent aller jusqu'en Sierra Leone et cetera mais mm-hmm. loolu moo fi nekk mm-hmm. n'est-ce pas de l'autre côté le pouvoir s'organise avec la pêche industrielle tantôt les Russes tantôt les Coréens tantôt les Espagnols les Portugais di leen jaay licence ñuy jël suñu suñu suñu jën bi léegi yaboy sax amatu fi coof moom doo ko gis ils hmm. prennent yëpp respectent rien du tout c'est le pillage de nos ressources naturelles en échange ñu jox leen un peu d'argent hmm. souvent pour financer les campagnes politiques dégg naa sax ne euh, le meeting de Thiès de pr là c'est un bateau russe qui traînait ici moo ko financé ah yu mel noonu alors donc vraiment euh, euh, euh et donc pêche bi lool léegi yow si tu dis que tu as développé la pêche comment tu vas faire à développer. non mais c'est que je veux dire que si la filière pêche est développée nu muy créer industrialisation mooy que tey soo duggee ci sunu boutique yi potu thon yi potu sardine yi yëpp bitim réew lay jóge waaw donc dama jàpp ne bu pêche bi développé woon sardine yooyu. ton yooyu ñuy yóbbu bitim réew di ko defar mun nañ ko defaree fii Sénégal ak yooyu c'est l'industrialisation waaw te je suis d'accord je d'accord donc la pêche moo tax ma ne moo tax ma ne la base de l'industrialisation est-ce que nekkul matière première bi mooy euh, pêche boobu par exemple jën yañ fay jàpp c'est la matière première waaw comme exemple bi nga joxee léegi par rapport au textile xam nga il faut préalablement ñuy bay coton waaw donc on se comprend Euh, soo waxee loolu soo ko formuler nañ d'accord que l'industrie a besoin de matières premières mm-hmm. qui passe par l'agriculture la le secteur primaire les matières <laughs> premières sont issues des ressources naturelles mm-hmm. matières premières c'est les ressources naturelles fa la jóge mm-hmm. ñuy jàpp ne yàlla moom moo ko defar teg ko fii si suuf si c'est ça que tu es en train de dire on est d'accord là-dessus kooku moom ñëpp ànd nañ ci d'ailleurs euh, depuis longtemps l'OUA nos nos économistes ñoom Adebayo Adjokodji à l'époque ñoom ñëpp développé nañu thèse yooyu il nous faut. 10 pour cent du budget à l'agriculture. waaw mais <laughs> euh, xam nga sa dépend noo koy defee xam nga 10 pour cent euh, euh, c'est c'est c'est comme mën nga ko def mécaniquement c'est-à-dire que on on les les gens du ministère du budget s'organisent en disant bon on va allouer au ministère de l'agriculture ou en tout cas ce qui dépend de l'agriculture. ay Issa yooyu des budgets mais quel est l'objectif de la politique est-ce que l'objectif de la politique par exemple je donne un exemple je vais développer la filière mang pour développer la filière mangue nañ def ay mango rek on on va quelque on, on